xale yi faas yi ñu jëlon duggal leen ci bateau ñom bok nañ ci ñu dugaloon ci bateau 5 quelque migrants finalement 60 quelque fi la ñu nekk fañ leen fañu ñu sen corps yi da leen duggal suul ci même pas mera lol yeb ci liggey marem faisal tamit sañu njaboot bi sama njaboot bi Sénégal jeunesse bi dafa am li nga xamante ne mu ngi am li nga am ñu bari nekk nit di ci awee sometimes bu leen assume li ñëw seen mind it is what looloo am buleen leen assume parce que dañuy dañuy nekk ci xex bu nga xamantene bu len fàtte ne xeex bii dafa amone ñi nga xamantene sen mami comme ñom li ñi def ni ci direct la diam dafa existe ci Sénégal bu léegi ta direct diam gogu mi ngi dox ci ay sit amna na benn waay bu wax ci benn plateau xaw ma mais ci Walf la dafa na Walf la waxee adoon mu def benn point bu am solo xam ngeen tey majorité parti tey yaay yi bari nekk di yuux di jooy et sa xam ngeen ñi ci gën a bari ñoom ay appeer lañu moo tax it ba révolution bi jóge jaam yooyu di topp naan ñoom dañuy politique di toppum doxin politique ñii toog naan seen yoon newu ci ñoom duñu politique mu am ñeneen ñi naan ñoom dañuy dem doxi seen soxla te jamono jooju saa yu xale jógee naan dañuy proteste mooy marche Sénégal bu jógee naan dañuy marche di ñaqu c'est lu len metti lu yag di ba ngeen commencer match match amna ñu bari ñu doon naan da ngay gis Sénégal di mars di joy, ngir lepp mëna nek faveur sénégalais yi suukool hypocrite diam yi gis ñi dem sen salon yi di liggéey ñi dem di jaay ñi dem di naan dañuy dox ñom sen yoon dañuy dox sen soxla lu gëna obvious lu gëna fanni ci sénégalais mooy soo leen nik soo nika soo leen toogee réunion ba pare ne dafa am plan bi ngeen teg ak benn kàddu bi ngeen di teg bi nga xamante ne yéen ñëpp a ci manko pour seen bénéfice yéen ñëpp bu dee fukk la ñaar ñooy maintenir ñooy maintien mais huit yi du ñu maintien parce que loolu yëpp histoire mooy répété waat depuis ci njëlbeen la te huit yooyu dina dem ci suuf jaaree feneen. dañuy defee na ñoom ñi ngiy def lu lu gën ci ñoom ak lu gën ci ñële ña ñuy feni te xam ñu bal ba nga jël nga tiire ko te wax bu rafet ba nga waxoon ne carrément dangay bañ bokk nga wax boobu dafa nekk faveur day dooleel ci ñi nga toog waxtaana ci ñaar ñooñu ñu d'accord maintenir yéen wit yi ci perte rek ngeen di nekk te perte bi ngeen di perte doo leen xam fu mu leen di jëlee pour yéen da ngeen defe ne ñoom dañuy foog ne perte googu ñuy perte kañ nit lañ ko def te xam ñi seen bopp lañ ko dañ dañuy xaar nag kañu doon waxaar kañu waxtaan a plan bi mu ñëw ci ñoom wax leen dara wala attaqué leen déedéet ñoom xamuñu ñoom ñoom ñoo attaqué seen bopp dañuy dem ba attaqué seen bop ba jiñ seen ba tabax seen bopp ñoom leen war dal bu leen ni mbëkk gis nga Sénégal ba mu jógee di révolté soo leen xoolee xale yi ñu bari ci gouvernement bi ci Marème Faye nii mii simb bi naan deret bi ñu mu rayil yaay yi bari ak mag yi bari jaam yi bari ci jigéen yi ay waa APR lañu ñi ngi jooy jooy secret ragal a génn ñi gis leen parce que am nañ ay archive xale yor nañu ay archive yu bari moo tax ñu naan leen dëkk bi révolté ci li mu moom ci li nga xamante ne ñépp lay amal njëriñ boo munta xeex sax walla munoo wax munoo jàppale ñi di xeex bul utiliser ay mots yi négatif tolu ñu ci defante de tolu ñu ci mama kokkali ken kokkali fi ken dede ken amu jot kokkali bay kokkali day fekk da nga na am afia yéen ñep day fekk li am ni gisoko sa beut xamone li am ni daf la ci yow mi ci Sénégal mais so da ngay kokkali da nga am lu la metti par xamone ni ngay parce que da nga tak parce que da nga jaay sa ngor parce que da nga wéeru ba pare nga rëccu xamoo looy def mooy il faut léegi li ñuy naan dem te neexul la rek mooy ñoom ñi ngi waxtu ñoom ñi waa APR ak waa Bennoo ñoom dañuy politique without politique maanaam dañuy nekk di politique te ñu ko ñuy politikal ñoom fa lañu toll waa APR ak Bennoo Bokk Yaakaar Marème Faye Sall naan kat deret bi a jëkkëram gàngooram googu bur yi rek lañu am ñoom bokkatuñu ci terrain politique ay ex lañu suñu ex premier dame bi ak ex président bi Macky Sall ex APR ex Benno amatuñu camp politique amatuñu agenda politique amatuñu plan parce que bye bye léegi ñoom fi ñu nekk nii ñoom ñooy waxal seen bopp ñooy tontul seen bopp tey seeni militant ci gën a bëri seen doom yi lañu rey nu mu ko xamee démb bu ma doon def tour ñoom ñi di xool parce que maa leen wax fii ne leen ba ne am na bato gaal gu ñu trouvé ay nit ñi de maa leen déet ñooñu demuñu fenn ñoo ñooñu xale yi ñuy rey la ñu teg leen feneen a xale yi ñuy jàppalu dañoo jàpp jàpp jàpp jàpp ba xàmmeetuñu sax fan lañ jàppee xa parce que dañoo jël engagé ay terroriste engage ay tëg ay bandi ay vagabond ay agresseur jox leen ay gànnaay ne leen nay sabek fu mu daal baax na ñi dem ba ñoom yëf yi dépassé leen dañoo gàddu ci ay néew ne naa leen kii ba mu ñëwee lu mu njëkk indi fondation Servir le Sénégal lan la njëkk servir servir des morgues kii résime Marème Faye Sall bi ex-première dame bi vampire bi kii résumé am laa leen ñëw tegal la mu njëkk def mooy tabax ay morgue yu bari te mor gi fan la ko tabaxee ci côté nord ba tey bañ ba ma gisee loolu mu jënd ay li ñu naan cercueil yooyu kees yooyu video boobu utti leen ko YouTube ma génn wax fii ma ne li yëpp ay saañi bon la ngeen ni fete di tàgg ba mu yóbbee ba mu ubbee mor gi jënd leen ay cercueil porte de waaye ne dañu taxaw di wax yow yaay vampire naan kat deret bu gën ci senegaal moom mi suñu exprimer premier dame bi premier dame bi non lañ ko don tagge tag parole bu nek dafa am lu signifie yow yaay jigen bu nar jité Sénégal di muccu ay bop di nan dret sa liguey rafetna kanoy tag ki nga xamantene dafa ñew sacc sa alal li nga soxla mo gënu am solo moy, make sure doto toog bay xif bay xol sa bop desperately tum tumuranke ba nara xalat xaru parce que haru wessul nga meunal sa bop dara amal sa bop njëriñ dem ba ki sacc sa alal nga tok di ko raamal pour mu may la loolu xaru la parce que ngay ni pour mu may la sa alal la ngay martatom mu may la xaru la xaru du caagin ku naan ay doom wala ku tiire boppam rek de déedéet xaru dafa bëri façon tey kii président terroriste yi ancien ex premier drame bu Sénégal bi Marème Faye bi ba mu indee ay cercueil di leen di ubbil ay morgue yu bari di leen naan dam leen defar cimetière yi loolu la loolu la duggee Sénégal de servir le Sénégal oui. fondation Bob, servir le Sénégal A comment maîtriser oui elle a bien servi le Sénégal mais elle a servi le bien de côté servir le Sénégal mu servir bien de côté ba mu mat sëkk ngeen pour di fecc porteur de wayaani di tàgg ndaxte doon jaam goxe di xam moo tax maa leen ay porte de voix parce que dañuy fen ay fenkat lañu dañuy gis lii boy sax ñi naa la taw gaa ngi taw pour dégg nga baatare may leen tey ñooñ tey ñu ko bii boy sax dañu ne mi ngi taw nga may leen ñu lekk kii ay saañi ay saañi deret symbole deret symbole wàññi askan deg la dugg see woon fan ngeen gisee mu defar fenn fi li nga xamante ne day tax nit ki du xalaat bañ boppam ba bay bëgg xaru nit loo ko promise rek loo ko garantie ci lépp ci aafiya ci bakkan day gëm ni que living dund moo am day amul mais Blood Saka bi ex dambi dame bi bu Sénégal bu mu dugg si ay deret de la doon planifié build up wax len ma suñu ex premier dame bi premier dame bi lan la def senegal li nga xamantene day nek the fondement li nga xamantene the assurance of the senegalese people as a ex first lady bu Senegal, a destroyer as a ex first lady whoever sack the senegalese youth they hate killing the children of others bisaa yooyu wax leen ma lan la def lu mun a yokk ci population bi ak lu mun a jox promise population of Sénégal ak lu leen mën a defar bisaay may ay géwël ay ngoyaan ay retardé xale ñii wëy wax leen ma lan la def lu jox sénégalais assurance lan lu jox the youth confidence pour ñu gëm ni que seen dëkk day su possibilité jigéen la de dafa jur te daa nàmpal man su ma génnee wala sama jeunesse bu ñu gisee dañu ne yaay yaay booy saa yu ñëwee ci man de dañu xam ne am na li ma mën a faj ci ñoom bugguma sax di entertain li nga xamante ne day wàññi sama youth li yok sama youth sama population de ay entertain sama symbole sa is a sign of development prosperity is a sign of believing hope is coming ki ban sign la len jox sign unity sign dajale ak ah, yok ak uf ban ku ci am ben nang ma jox garantie nang ma answer bon ba mën nga ko binde fi li la def li nga xamantene day yëkkati Sénégal pour de the future generation ku ñëw fekk ka fa li nga xamante ne dina sustain ñi fa nekk ba mën a sustain ay generation after generation tell me about kii ba mu ñëwee lu mu njëkk def mooy wàññi Sénégal rey leen après plan dem créer armée terroriste ci jigéen ni terrorise Sénégal moo moo nekk nii tey of course dafa naan deret ba deret gi xajutul ci bassin biirom bi deret gi mu naan dafa dem ba xajatul moom Marème Faye Sall mi deret gi dafa dem ba fees ci yaramam ci biirom ba xajatul dina génn ci gémmiñam génn ci noppam yi te mi ngi naan deret ba léegi président Wade waxoon na ko ci benn vidéo ne dañu ni ko ñii ay dëmm lañu Marem Faisal ak Macky Sall famille yoy dañuy naan deret ay dem lañ dalen leen dalen dak fiñ defa niki na kuko xam kessé mo la mëno té des fois bu nit waxé bul gëmagum ba yow nga gissé ko sa bop of course président wat bu mandung ko waxé man bu mu ko déggé dama ré pour man jëss président mom dafa nek a funny man fan la moom moom he's full of life pour man day kaf day jóg but it is true parce que ñoom ñoo ko jos ñoom ñoo ko confirmer seen bopp moom Marème Faye Sall fan mu toog bër bu set mu ngi calculer ñaata bopp la mucc ak ñaata deret ay jigéen diryanke di ko topp di naan seen yoon newu ci tey dama ni leen ñooñu ñi ngi souffrir seen yoon da cee nekk parce que seen dañoo xam ni que seen yoon da ciy nekk moo tax ñu daan ne seen yoon newu ci te lii fu ñu nekk nii ñoom ñoo nekk di jooy seen doom yii premier drame bi rey néew ma xale yi nga xamante ne ñooñu dañoo jóg pour xeex seen dëkk pour firi seen dëkk ñu tooñ leen fekk leen seen xeex ci tooñ am na ñi nga xamante ni dañoo génn sa xeex lii moo tax ñu naan leen guerre bu amee ci dëkk bu leen hypocrite parce que guerre du xàmmee bu ñu sokk bu ñu bojj kakawoo kook ci boppam dafay fàtte ne moom ci boppam moom kenn la moomul boppam su wootee ne ay kat ay militant ay militant am ci boppam xamu leen moom xam ñu sa seeni militant ñoom xam nga lu ñuy gis taxaw nañu fenn mbooloo bi ñëw na mais tey soo leen laajoon tey dëkk bu nekk seen militant xamuñu sa seen militan yi soo nan ngeen di munee toog yéen ka ngeen di topp mu indil leen armée terroriste teg ko seen dëkk pour terroriser leen. te yéen ngeen nekk ay sénégalais nan ngeen ci mën a compter seen bopp ne yéen moom kenn du leen laal da ngeen am marque bi wane ni que na yéen bennoo bokk yaakaar wala affaire ngeen bi ngeen doxee ci biir dëkk bi pour bale ñi tiire ak ñi ñi jàpp bu ñu xàmmee pour ñu xàmmee ñan ñooy affaire benn bennoo bokk yaakaar ak ñan ñooy ñi nga xamante ne xale yi xeex pour seen dëkk amul marque. xale yi di revendiquer pour seen dëkk ak nit ñi Sénégal yi di revendiquer ñun dañoo génn wane seen bopp ne carrément ñun lii la gëm léegi yéen mii ngeen xamante ne ay APR benn Bokk Yaakaar amoo leen sa marque identité yéen da ngeen topp ni te ngeen topp ci boppam xamul yéen ñaata ngeen xamul ñeneen sax xamul seen tur xamul seen sant leen xanaa ñu am saa ñu dem ñu fay leen ñu naan dem leen mbow wi comme nu koy defee nii rek mu ñu dem di mbow ñooñu taxaw ne ñoom ci APR Benno Bokk Yaakaar la ñu bokk léegi ñeneen ñi nga xamante ne ñoom génn ñu boobu ku leen ràññee ku leen xàmmee moo tax gis nga ne ba ñu nee gis nga gaal yooyu am na tam beneen tamit bu nekk on the way nañu def na jël xale yi dugal leen ci gaal yi par la force ne leen dañuy dem dañuy dem immigré ji ñoom xam ñu sa ne seen doomu militant yi seen bopp ñu leen téye rey leen léegi nag ñooñu doon tiitoon ne ay militant après tey dañoo regretté bëggatuñ sa dégg lu mel ni Macky Sall ak Marème Faye Sall te ñoom ñi seen bopp xam ñu ne laal nañu ba laal seen nit ñi xamante ne ñemew ñu wax dañoo na pat joom mi moo tax looy naan sam yoon newu ci parce que danga xam ne sa yoon dina ci nekk moo nga teel a annoncé sa yoon newu ci li ngay naan xeexoo danga xam ne dina ñëw di nga xeex atee mi dina la jox xeex ba nga xamante ne yow kese yaay toog di ko xeexal sa bopp pare ñemoo ko yuuxu mooy tey naqar gi ngeen féetee ni yéen waa Benno Bokk Yaakaar ci gën a bari yéen a ngi jooy xol yéen ngi yuuxu te bëggoo leen keneen dégg leen parce que dangeen a taxaw ñii génn di xeex ngeen naan dangeen doxi seen soxla yi bari fekk leen fa fekk nañ ñeneen ci yéen buub leen ñii nga xamante ne dañoo dem mel ni comme ay zombie dañoo jëli ay nit ay agresseur ay tëg ay bandi ay terroriste indi leen ne sol leen tenue ramassé leen parce que dañoo xam ne senegal fa mu commencé ba fa mu daj amuñu carte pour ñoom kenn du leen votel kenn du leen sànnil carte léegi nag ñoom fu ñu nekk nii sénégalais yi lañu jóg di toroxal doomu jigéen yi kilifa yi paa yi jur seen doom yi ndaxte sénégalais kese moo toog nangu yëfi jaam parce que paa boobu wax na neen ndax da ngeen di toog noonu ak quelque nit di ñëw di yebla ay ni dugg seen koñ di jël seen doom am na benn vidéo bu ma seetaan xale bi. ci këram la nekk ay samba boy ay vagabond mooy agresseurs yi homme de tenue yi Marème Faye Sall ak Macky Sall fekk ko ci koñ bi di ko jàpp di ko diri te pourtant koñ bi ñëpp a ngi toog de bëri ña nga ca koñ ba mais benn xale boobu groupe homme de tenue di ko xëcc mi ngi sol ensemble tubéy bu weex ak t-shirt bu weex ma gis ko ñu koy dàq génne ko mën naa leen fii kër seen kër la ñu koy dóor foofu koñ ba ñëpp toog loo ni toog bu ñu ñëwee ci benn koñ di jël benn xale doom ci koñ ka ay homme de tenue di ko dóor di ko toroxal te deful dara yéen a gën xam deful dara ngeen toog loo ni toog ka filmé def na effort filmé na ñi gis lu xew mais yéen koñ ba li ngeen bëri ñooñu calculé doo leen génn koñ bu nekk bu fa doomaraam yi duggee di attaqué ay nit jël soo leen génnee tamit ak seeni gannaay xeex nit ñi dañuy filmer nee naa leen ci guerre la jëm lii du politique Sénégal yi yépp a nekk en danger ku sa yoon ku sa yoon nekkul ñi ñuy fay ni sañu nekk ci écran yi di mbaw mbaw mbaw xoolal comme der jaam bi may wax de lu seen maam yi defoon moom lañuy ñuy mais nañu dem xoolaat ndax seen maam yi dañoo gañe gañew ñu parce que seen maam yi lu ñu ajee loxo ñu takk leen yóbbu loolu bu doon am ndam esclavage day continuer mais sen maam yi accepté woon ak seen loxo ñu seen yob ñom ñoo perte tay ña seen maam yi doon ñoo taxaw tay samp àddina gi tag esclavage fépp donc ñooñu ci yoonu perdant lañu nekk ba tey parce que ki di leen utiliser ñaar nii kii résumé portfolio dafa nekk over ibn terroriste lu kay xaar seen pays moom gis na bu xoolal tey Simon Gbagbo Simon xamuloon mais gis nga Simon dafa nekk ah, jigéen gu baax entourage ko dugaloon mu def njëñu yooyu mais moom ci boppam jël na loolu comme learning experience ate mi téye ko ak luñ ko toroxal ak luñ ko def mu dem dell si dafa sol veste bu mu moom moom ci boppam humanité léegi moom moo nekk di wax nit ñi dëgg réalité ci lu làqatoon lépp lu nit ñi xamut ba mu waxee ci vidéo partagé naa ko fii lii laay bëgg nit boo defee erreur ngir sa égoïsme sa tiit sa jalousie sa bëggee soo demee ba am ci expérience nga reconnaître sa mistake nga am bakkan nga kon fi mun a wax askan bi da ngay ñëw jël sa histoire pour sauver ñeneen yi ma dikk ci salut Simon bagbo ba mu génné wax mané ne lay xaar mané ne wel lepp lo gis lu ne lu négatif nekul da nga lose yëpp is about for you to revisit yourself pour nga xam yow yaay kan nga mën jël la so nga xam ni ngay taxawé waye ki force Eva Drambi suñu blood saka bi du musa because you know what Famu commencé ba fumu tollu ni sax ex premier dame bi mom famu mu juddoo joxuñu ko dara li nga xamantene dina ci bounce back revisit him herself pour mu mën xam moy kan dede. Mom dafa héritage ay beccu bayum jox ko assurance of life wickedness hatred bañ soxor an coros boppam loolu la dundee loolu la màggaale jaayal sa bopp del martaat négliger sa bopp bul gëm sa bopp mënuloo dara sa bopp danga feeb danga wikk amuloo sa bopp njëriñ te doo ko mus a amal njëriñ amoo sa kenn njëriñ te doo mus a amal kenn njëriñ loolu la ko baayam jàngal ku sa baay juddu nag amul dara lu muy taamu ci góore lu dul moom kat ak takk ay beccoo di dem loolu la jox doom ji te ñoom ñëpp moom la ñu lépp li nga xamante ne ci famille ex-première bi Marème Faye Sall bi ku becco dañ koy bënn te becco fan lay nekk sa biir taat ñu jamaat duñu takk becco becco fa lay nekk ci sa biir taat lu salte lu ne lu génn sa taat ci becco lay daal ñoom lu salte lu nu génn ci taar ci becco la dal mi moom moom la hérité salte donc kii kan na xool nga defe ne dafa am am mind of clean amul soo tey sénégalais yépp yaka toppoon tey ñoom ñépp ci gën a bari ñu ngi yuuxu tey Simon jox na ko exemple tey bu ñu demee tey ba ay xale ñu nekk ci dëkk Sénégal googu ay magandoo ay meer ay jigéen ya jur ne moom taloo leen dara lu dul bu ñu tegee ne tànn biir mariage ngeen waaxu programme bu am ngeen waaxu te actuellement nii Sénégal seen dëkk boobu seen njaboot yi ñi ngi xool fan la ñuy daw làkkatu parce que barbarie mascarade bu nekk daw Sénégal is beyond is beyond te loolu kenn xamul ku nekkoo ci laaj kenn du la mën a wax kii lii la def lu dul dangeen a accepter topp ay quelque nit ngeen ni mar seeni taat topp seen ginnaaw ñii terroriser seen propre nit ñi ngeen toog pour yéen da ngeen toog daal ñuy toog ci plateau yi di ki ah <laughs> ñëpp a ngi jooy senegaal ma leen lu am ña toog ci plateau yi sa ñu ngi jooy seen mbokk yëpp laal na leen amul kenn ku ñu laalul mbokkam Sénégal ñépp dañ leen a laal kenn desul dañuy camoufler nii rek di toog di wax de baat ñi ngi yuuxu parce que xool leen deux mille détenus. 2.000, mille, deux mille détenus. ñooñu boo leen xoolee Sénégal parce que ñëpp 2.000 mbokk 2000 deux mille détenus Le whole Sénégal dañuy affecté mille xale yu rey <coughs> mille xale lañu rey ñi jógal leen ci gaal yi ñi ñu pare di ut fu lañu làkk koor yi des na parce que qui ex premier dame bi premier dame bi Golo Seck bi dafa lu bu len fat dafa len tabaxal ay morgue yu bari daf ko mu ci deret yi ak naan deret ki yu xalé yi yi ka defaroon photo montage nas bi jëlaata benen photo nga nasal ma ay bop bopp yi ëpp na li li nga nasal nasal len ma bopp yi nga tek ko ci loxom rek yónnee ma photo yi lol rek la bëgg parce que photo bi mo wax lu xew amna lu muy def ci mom bëgg ko gis photo yi yi ngeen ka nasal bopp yi is a spiritual message ci moom dakka day sonal spiritually dakka day bëgg ko gis da kay traumatise parce que loolu la def léegi lu mu def noonu ngeen ka kay jox bëggul ko koy fàtte lu mu def soo photo boobu xale yi boo leen boo leen ni bu ñuy nekk tiktok boo leen wax sa jël leen photo boobu ngeen teg ko tout le temps wax boo ni laay sax be da video sa live di attaquer photo bop yi Yuri yi nga nasal da nga special photo bop da kay ton mata photo bop moo ko rek def she doesn't like it parce que deret gi nan ni mission bu mu bu mu lal ñom ñep parce que gis nga nit ki da ngay dem nga liggey nga dugg ci ay yefi bon comme ko ñom yefi bon lañ bu xam ay liggey gis nga dama ni len amna yenn affaire bo ci duggé te fa nga koy yóndu dëgg dafa set day delluwaat si yow bàyyit la soo bàyyit boobu nag kaama di leen topp moo leen tormatiser li muy def nii yëpp ah bu ko defee nii pare ngeen koy yóndee photo di ko fàttali si hate it she hate it spiritually da koy sonal moo tax bu moo ma koy tegal photo yi ak photo boppam yi mucc gi donc da ngeen imaginer nit ñu teg kaso te def ñu dara ak mille xale yi ñu rey Sénégal yëpp dañ ku nekk da la laal femme yëpp la ñu laal ña nekkoon ci ñoom dañoo démissionné discret li ñu toog nag jàpp seen ko gisoo dañoo toog rek dañoo ñoom dañoo tiit dañoo am si boppam dañoo bokk ñoom ñoo gën a tiit parce que dafa am ñoom lu ñu gëm topp ci fen bi ak pukkiri bi di wax léegi nag ruus nañu wax si yuuxu seen jooy parce que xam nañ ne di leen yéen di ngeen génne leen déedéet yéen seen yoon newu ci te yéen identité ngeen yor ay affaire Benno Bokk Yaakaar commencé fiti ngeen war a affecté ci li ñuy def Sénégalais non Sénégal yëpp moo affecté wu. di leen di naan Sénégalais soo leen toogee fu ngeen toog ngeen di seetaan ex bi ak ex jëkkëram président Sénégal ex groupe bi nga xamante ne dañoo pare ba pare jeexal nañ pare dem. parce que du ñu am vote sénégalais woon ñoom ñoo gën a xam Sénégal yépp bugg leen moo tax ñiy def lii di ramasser sénégalais di leen toroxal te yéen pourtant toroxal leen da ngeen am ndam ci ñoom ndam bi nga xamante ne ñoom deux ans lañu woot deux deux mandats lañ te deux mandats yi may nga leen ko pare jeex na léegi lii ñoom ñoo leen tooñ te tooñ gu ñu tooñ ñoom atay nit la ñuy defanteel du yéen waaye nag ñeen toog ñu dugg ci koñ quelque nit di attaquer ay jeunes ngeen toog ci koñ bi di xoole fofu lay ñew waxe yeen yaay pay ay jigen ya taxaw xex andax sen doomi xex ku kër gu ñu dugg si di jël di attaquer ben xalé sa ngeen tok amna benen video ma gis ko xalé bi dugg si papa jaa tok yaay jaa tok ñom dañu bari ci kër gi ñi kay door sen kanam mu ngi tok di yu mom pël la doon la xarplar mi ne papa ji di yoo papa ji yaay ji ñoom ñëpp xam ne li ñu ko nekk taxaw foo wat foo parce que ñii tonni la ñu sol ngeen kër gi ngeen war a jóg xeex mu jaraleen seen bakkan ndax seen doom la ngeen di toog am ngeen ci droit seen doom yi lu ñu def defuñu dara defuñu dara xeex bii boo leen defee ne xeex bi ngeen di xeex yéen ajuumaaw foofu ngeen defee mistake yàgg naa leen ne. ajuma woowul kenn de ajuma jëndul kenn joxul kenn xaalis na ñëwal xanaa gisoo leen Sénégal moo jóg génnee message boppam yéen mii topp pour topp benn bokk yàq yéen la ñii di jël seen alal fay leen ngeen wane seen jukkey jaam ngeen def li tey na yéen ak nii nag jukkey jaam du mus musul am ndam fenn jukkey jaam jaam bu naroon am ndam nee naa la esclavage du jeex buuru jaam perte na bu yàgg. fa ñu demee ba ba ba ñi moomoon esclavage ñoo leen ëpp doole yéen am ñu ci réussi lan moo leen mën a jox confidence ne ku yéen buuru jaam yi as buuru jaam yi ndaw yi ex yi mun nañu am réussi ci fan ci yéen ñi ñu manipule yéen ñi ñu jënd mais mun ñu am réussi ci ñi nga xamante ne ay doomu gor lañ suñu ancêtres yi dañoo subir lu gën a métti ba ñu firi de nation donc sama njabot bi liñuy fess is not metti dañu nek ci dernier test bi so tay bu ma gisee ex premier dame Marème Faye mi premier dame ex bloc sàkk bi bu Sénégal mu ci kat bop xalé yuur ya nan ka direct su démé ba gis sama ñaari premier dame mi khadi ak Sonko mu jël leen daf leen ay rivalam loolu mooy conf ne dafa xam ne ñii ñooy première dame yi ñaari xale yi ñooy première dame yi ko war a ñi ko génne ci palais ba pare te moom liggéeyu déjà dafa gis ne ñaar ñi Khady ak Anna Sonko ñaari première dame yooyu mooy première dame yi ñëw pour liggéey Sénégal ñooñu ñooy première dame garantie ñi représenté femme pure sénégalaise ñoo ñooy première dame yi war a protéger tur jigéen jàmbaar Sénégal Khady ak Anna mu ñooy première dame yi nga xamante ne ñoo war a protéger the beauty taar intelligent smart ak yaay uuf jigéen sénégalais so Lolo metti nako metti gi nga xamantene ne mu fay ay motoro, ñi nga xamantene ay jaam lañu dañu wéddi seeni kodal bay sa ak seen and ndey ñi top ci mu Lolo len leen da leen mboow loolu kii loolu la senegal Sénégal bu amé tamit benen promise bu mu tek senegal li nga xamantene senegalay mën nañ ci ba after génération wan leen len won leen ma ko bu dee tur amul tur gu rafet jarul sax muy protest because she don't she don't have no name to lu jigéen di naan ay have a name to moom amul tur bu mu war a protéger the name is already be destroyed by herself léegi dama bëgg yéen ngeen wax ma bi bisaay di fay ay moteur en tant que ki nga xamante ne dangeen ko joxoon tur titre mu war ko protéger mu jël titre boobu def ko Bulor sakka moom dafa njëkk créer titre am ba pare mu protéger ko Bulor Sakin Bulor te Dakar Assuré dafa mucc mu ngi mucc ba léegi léegi bisaay loolu créer terroriste guerre ci dëkk bi Sénégal génnee leen ma lan la teg ci xaalis sénégalais li nga xam ne teg na ko ci suñu dëkk bi Sénégal ci suñu propre xaalis nga xamante ne dina leen amal njëriñ Aman njëriñ generation after generation aman njëriñ benen generation bu ñew put it out there Yen mi kay top yéen wa Benno Bokk yaakar Sen brod sak bi sen Pawn Star bi sen first premier drum bi suñu ex premier dame bi dama bëgg yéen Benno Bokk yaakar wa APR tegal len ma ki ci suñu xaaliss Sénégal kees Sénégal buñ ko jox pour mu liggéey du de lan la teg ci Sénégal li nga xamante dina amal njëriñ yeen Sénégalais yeen mi ka supporté la wa de man sama njabot bi nga ne ñooy sen bop di défar Sénégal di ko xépp rek wax ma sama njabot mais yeen benno bokk yaakar wa APR génnee len ma ki lan la teg li nga i da fay symbolize ki premier drame bi lan la tek li nga xamanté dana len amal njëriñ yeen amal na len njëriñ ba xamanté sen doomi war nañ ci hérité wax bi fala du gis suñu ñaar promise premier dame khadi ke sonko première dame ana di sonko ñi genn express sen bop na ñom they are a very original premier dame yëf ñu laal leen laal seen force ever premier dram bi de Blotsaka bi ex premier dame Senegal Sénégal bi mu laal xolom xamul lu muy mu traumatise mu naan na moteur yi déclencher dem leen mbow you know sometimes damay bëgg yeen wa appel Benno Bokk Yaakaar seen xex mu make sense mu am sens because man soo ma ci penc jom naa taxaw foofu di naan yow yow yaa def li wala koy bàyyi càppanday déedéet man damay bëgg sama morom jigen te jox ma just show me sa achievement lan nga def what do you have give for your community You're giving back mooy sama interest She's her own proper work money sa xaas bop yow lan nga liggéeyal sa dëkk soxla ma ñi nga xam dañuy toog naan man diw laa far diw laa far lu tax nga far ci diw lan la la indil man sama xale yi taxaw naan kuy ñëpp man I am a queen born with my crown dam ko assuré dama archive archive jaru sama leen wax lu ma def because sama empreinte mu ngi partout samay archive men mu ngi ci youtube mu ngi fépp ci sama own work du ma élilo ko xaar ma ñu jox ma dara jël ma kees kenn sama propre kees laa ñëw invest liggéey jàppale sama askan ba léegi maa ni ngemb léegi yéen seen force Eva Premier Dram bi seen porn bi seen blood saka bi seen maada fokkin data naar yi doomu naar yi Dubaay famille kattante kii léegi assurance boobu la leen jox mooy di ngeen jaay data jël ndayam jox ko ñi kay kat katé fu nek jox jito ko jox ko sëriñ mu nek seen data data sëriñ yi moom mu nek data APR boole ci indi ay yenen data tek fa mom mu nek data bi nga xamanteni asalu asa bom yi dafa assurer bopam ah, ci niveau international mom fu mu dem day ngarale ay mbakk lay sol fu mu dem ngarale te bu sa fam sax la nit ñi naan mun na jaay mu indi ñu indi ñu dar li nga xamanteni amal ñëri mais fu mu dem dina fa ngarale ciottu gi ba ci oom gi fettal na ba ci cott gi àgg ci oom gi moom dafa demul fenn ba réussir moom bu demee ngarale luñ ko utiliser mooy comme que doomu naar yi pour seen naqi doom yi dëgër seen sirit koy doom yi dëgër dañuy utiliser femme marron moom mu xam na géem boobu xam na ko bu baax avant même jëkk ji di doon dara ci nguur moo dem Dubaay dem ci dëkk naar loolu mu nekkoon business am fii ba mu nekkee New York loolu la doon ànd ak jigéen New York yi ñoom kuréel njaay ñoom seen clip la yàgg nañoo dem foofu loolu moo nekkoon seen liggéey te ba mu ñëwee na am occasion ngeen nommé ko mu nekk seen premier drame de Sénégal mu assuré liggéey mais léegi nag mun na am occasion parce que am na avion jet private jet am nañu avion bopp boo xamante mun na leen yóbbu soo léegi suñu avion lay jël dugal fa diriyànke yi ñoom ay na jàllo ñeneen ak ñeneen jabaru sëriñ ñooy gis noonu dugal leen ñoom Mbacco Ndiaye ñoom ñëpp. dugal leen ci avion ne nañ dem la mission continue loolu la leen assuré loolu tam nag xale jigéen sénégalais yi di ko topp du daleen leen wan na leen ni ñuy jaayee data wan na leen naar yi la ñu soxla wan na leen lan mooy assuré pour ñu jot ay mallette porte à porte moo leen ko woon lépp moo leen ko woon côté boobu moom assurance plein complet léegi nag dama ne bisaay loolu mu assurée ci sénégalais yi wax leen ma yéen waa Bennoo Bokk Yaakaar ak waa APR first ever premier dame bu Sénégal ever am ci Adina ak suñu ex premier dame bi lan la teg Sénégal li nga xamante ne jigéen ñi seen bopp gis ngeen seen bopp te xam ne seen doom yi ëllëg ci wax sama tontax yéen mi di wax ci sama ñaari premier dame yi dama bëgg ngeen assuré ko because sama ñaari première dame yi première dame Khady K Sonko ak Anna Deye Diamanka ñooñu dañoo assuré ñoom kenn jox leen kees Sénégal seen jëkkër yow Marème Faye Sall sa jëkkër moom Macky Sall mun na taxaw ci kanam ajuma mu seetu day seetu loolu mooy dafa clair sa jëkkër soxlawul jënd seetu bu bëggee seetu na dem ci ajuma rek ne ko ajuma taxawal ma seetu dina gis boppam yow mii sa jëm bopp Marème Faye Sall yow soxlawoo seetu wala soxlawoo li refresh sa mind li nga war a def mooy jël première dame Hadi Ké Sonko premier dame ana di sonko nga len taxaw len kat ma setu nga meuna refresh sa bop nga meuna xamé nga meuna nga meuna bounce ba xamné yow jigen nga arme yi nga yor data gi ak weeni mom mom lañu yor nga lañ len nan nga ko warno utiliser ñu jox la leçon yow nga dem prochainement ci beneen monde bi nga war a féete nga jël loolu comme histoire tu tell a story mooy comme nu ko Simon boo defee mais ba tey muusoo yeewoo parce que ci ñi nga juddoo la ay beccu ñoo la encombré beccu day bënt lépp liy salte ci taat ci beccu lay daal sa baay mu la jiitalee ak beccu muure la beccu moo la teg loolu du keneen ak keneen sa ndey mu la war a jàppale def la ko dafa d'accord ci sa groupe ci sa liggéey mu ñoo bokk yow ci yaayum ndatta te bu seen ndatta yaa sa ndey safoon ni ko noonu benn sëriñ du traumatiser bee terroriser seen propre people yow sa bopp doo ter doo traumatiser bee terroriser say njaboot gis nga ndatta jigéen bu safee te baax neex ndatta jigéen day yëkkati day dajale ma Faye Sall du tas bañ ne ko ndatta day ubbeeku tëj ndatta pour nit gis ko dañ koy ubbi nga taxaw sumeeku sax ñi gis sa forme data bi ñu ne gis nañ sa data dañ koy ubbi ñi gis ko lu tax ate mi def ko mu tëju dafa bëri secret te bëri doole am puissance surtout góoru njiit njiit boo ko amee nga am data gu nga war am danga koy ngeem mu taal ko mu dem first lady Hadi kee Sonko a first lady ana di sonko ñooñu dañoo yor buy yëkkati buy defar buy leeral buy ngemb buy fortify buy fonde moo tax yow sa jëkkër mënulul dara seeni jëkkër kooku ñëwul ak ay de kooku ñëwul ak bomb ñëwul ak bal seeni jëkkër dafa ñëw ak gëm-gëmam ak doole ku ko atee mit jox ak kusaanum mu taxaw jàkkaarloo ak sa jëkkër parmatise jom mi xamul lu muy def ne guerre rek guerre ba guerral sa bopp yow mii doon jigéen ay jigéen génn pour la première fois ay ñaata at nga topp seeni jëkkër ñaata at nga topp ñaar jigéen yooyu ñu bañ laa wuyu faalewuñu la parce que dañoo dem dañoo natt seen daal rek ci yow de yow nga dugg sa tànk nga lab ci biir ñu naan bon nañu toog kii bu ndekki yorul dara nañu bàyyi suñu jëkkër ajuma sonk mu continuer mission am di defante ak sa jëkkër sa jëkkër nag ak gàngooroom arme ay kano ay missile yu mu yor mu ñëw nag ne ajuma amu ci benn ndam ñoom ñaar ñooñu ñaari jàmbaar jigéen yooyu xamante ne ñoo tax ñu naan Sénégal suñu première dame yooyu ba ñu génnee lancé benn message dañoo wax de te wax bi c'est est-ce que mot na une temps dof nga jëfur nga dépressionné nga yokk nga encore jëloo sa cerveau nga tenk jëloo sa xel nga dem attaque ba nga dalee attaqué ba léegi tell me about it fan nga mus gis you got a vie amoo sa green check mark ba nga dalee attaqué yow Marème Faye Sall wax ma fan nga amee ndam say attaque yépp ci àddina ci Sénégal where fan show to me wan ma yow avant sa jëkkër sa di sa premier ministre mu soo sa liggéeyal Sénégal nga am occasion ñu jox la pos nga war a change sa closet nga war a change your cost come out from your own pocket nga sustain protéger sénégalais yi loo def nga wàññi sénégalais wàññi ci rey seeni doom yi ci muucu deret ci naan ay yuur nas ay bopp téye ko di compter ñaata nga war a compter how long are you gonna be counting when are you gonna be end counting ci li nga dugg li nga engagé bopp yi la laaj di nga ko compter de but guess what di nga compter ba compter your own bopp après nga réalise ne ngay compter ni sa doom yi lañu liggéey bu salte noonu lay def ñaari premier dame yooyu xadikee sonko aana di sonko danga wane sa faiblesse danga ndekkee ñooñu say morom lañu donc yow danga confirmer ñooñu yee de aar fausse lady bu leen tontoo bu leen tontoo ci côté bi nga xamante ne waroo leen tontoo côté boobu danga war a génn as a fausse lady bi nga bëgg a doon te doonoo ko dañ la ko joxoon honoré titre boobu nga nekk first ever premier dame bu Sénégal nga nekk à ex first lady nga war a ñëw as a jigéen nga wax ak ñoom nga tontu baa déedéet di sem wee li nga xam ne nit ñi surprise ñu because de laa xam soo man soo gisee may def vidéo bi pour sa own people say répondeur yooyu nga jox bu ñu gis message bi parce que man ñooñu duma xañu man may sama message ci yow la because man sama bop dabo ma man duma sa morom ben, ñaar duma sa pandor, nyet fuma ma taxaw do fa ñame taxaw ñent fu yuxo do fa ñame yuxo because yow xam nga man duma sa morom sa jëkkër su ci bopom mi nga summi ay mbabalom ba xamante bi nga xamé ne dara nga dem occuper yérim sék xam nga kooku sax man ñemew taxaw sama kanam man mi jigéen wu ci ministre good parce que ñu xam sa bopp a gën balaa ñu la koy wax léegi waaye sama ñaari doom yooyu jigéen yooyu ñoom duñ la tontu de man seen mama maay ñëw wax ak yow First Lady Kee Sonko Khady Kee Sonko ak First Lady Anna Dija Amanka duñ la tontu man maay tontu ñoom dañu wax ñoom parce que dañoo génn wax a àddina gi ñu wane seen respect seen dignité seen classe seen leadership as a women ñu wane and women empowerment dajale la ñu xam they already did the message loolu laa bëggoon da rest I handle te maa yow bu dee ñeme nga attan nga ma rek yow continue with me parce que man Binta bu jaabi il faut que sa slip mun a tolloo ak sama bos data bu rëy laa yor te jigéen laa il faut ñu tolloo te dama jong yow Marème fay Sall soo ñemee loolu. da nga ñoo jàkkaloo ak yaay xadi kebe ak aano jamanka ak yaay ajooma ne naale man la du ñele waye man lu ci metti moy dang maraka parce yow fum lay gene tegal la you never gonna wanna see parce que da nga no ala hurt day metti of course day metti kay mo te da nga war lu rafet man de bama amé 8 ans la commencé encaisser bop 1000 francs ca Casamance dama téla compter million on my own sweat. dama teel a jënd lu cher dama teel ay or pour de xool lu muy parce que or bugguma ko honestly because dafa am ñu bëri ñu sofa surtout fële dola, sama jabot gi ñuy toroxal ci or man ma jënd ay or boîte dem ba Sénégal maye Dam ko don batterie di xool batterie what is test like Sen batterie googu amul luma ma sama daram bop lay jox sénégalais légui yow nak bala nga ñew pour mëna motax amo fu may tonto because da nga xol xol xol sama portfolio nga xol nga ni ki daan bay dé may lakk sa xol di toj sa ciot nday di gëna xëc ci sa ciot gu lang googu ba sa omi fett te do ci mun dara dama dé ñëpp tuuti ngay damay bëgg nga ñëmé nga ñemee Binta Goudiaby mii the only one nga ñemee Queen Binta Taasu mii nga am courage comme ni nga amee courage di jox sa moto ne am leen wax leen da jox moto ne leen wax leen ak kële man bu ñoxee man du ñoom I come here and deliver to parce que man yow laa amal affaire man mi nga xamante ne du ma sa morom man yow laa amal affaire man du ma sa man mii nga xamante ne yaa ma mag fuuf mais dama la dépassé sama portfolio sama man sama scénario sa sa bos xaaju ko dab première drame bu Sénégal amoo benn histoire bu clean yow yaa baat histoire da rekk you have win yow rekk yow nga am quatre mois yu la dese yow yaa ngi ciy defante ba léegi parce que li nga bëgg nga mënut a gis te nee naa doo ko mës a gis depuis 2014 yaa ngi wër biddéew googu mënoo ko gis why can't you look for something else parce que fu ne quatre mois yi mënoo ci defar sa tur ci quatre mois yi même bu nekkoon quatre ans sa moo mënoo ci defar sa tur yu have done sa much bopp yi nga naan deret yi nga tuur sénégalais yépp a ngi jooy boo toogee defe ne quelque nit yooyu toog di wax ak yow walla ñu naan yow li de de de are with you mistake bi nga yàgg def moom la ñuy continuer bu leen danaa gën a teel yoon ñëpp la rejeté ñëpp nga laal seen kër kër gu nekk fëgg nga ko ci naanum deret amul kër goo bàyyi nga nekk APR nga nekk bennoo kër yépp nga fëgg ci naanum deret kër yépp nga muuc bopp boo ci soxla amul benn kër bu des donc soo toogee. nga defe ne ñoom ñu taxaw di wax waaw lii ñooñu ci politique la ñu nekk te xam ñoom ju ñoom danga leen a yóbbu ñoom ci politique mais xamuñu ba tey yow ci guerre nga nekk ak ñoom parce que da nga perte say 12 ans amoo ci réputation bu baax say 12 ans Ousmane Juma Sonko dafa yàq sa réputation yor sa jëkkër ci patient confidence am gëmam bravoure mu xëcc leen yàq sa jëkkër yow. ngeen yak seen réputation wol wayal amoo leen gu rafet for the first time ci Sénégal aduna gi yëpp leen woon ginnaaw fan ngeen di immigré bañ ngeen ko motax fo len leen fekk Arabie Saoudite da ngeen di daw man amna sama benn sœur xamante ne ci ah, militaire euh, américain dañ fa la ñu bu ma li ma laaj ne ma lan motax yow ak sa jëkkër tout temps yeen nga arab saoudi ma dañuy faq fu ne da ngeen a paranoïde tiit yéen a yee tiit parce que ñu leen war sa wóolatoo leen of course da boo naa naanee ba mu ëpp bu dépassé sa loxo foo toog war nga tiit parce que da ngay xam ni it can be any time c'est da nga xamul wenn xaw ni muy ñëwee am nan lay xaapane loolu moo ëpp sa bopp wata liggéey atemit du da ngeen ne woon yéen a yor doole yéen a yor armée yéenay attaque Sénégal. so why are you being fear and scared lan moo tax nga ragal Marème Faye Sall lu tax nga ragal lan la tax nga ragal yar sa jëkkër foo toog da nga pare nooy dangay ngay tiit wóotoo kenn lekk sa léegi ku la kenn da ngay ragal you know what you did <clears throat> ñu ne boo toogee kenn ñëw ne la dégg naa laaj ko foo ko déggee kooku bu la bëgg too ku ko wax. bu la joxul tur ne ko bul àggale nit su la xoolee ne la diw kële ngay gis ne cagala danga koy ne nan nga ko xamee tout le temps nit bu gisee moromam da ne ko lii nga am na lu tax nan la def ba kooku mu xam ne kooku lii la ku amul lu mu lay jox ne kaa diw waa nii la def moom ma diw a diw diw nii ñu ngi nii bul gëm soo soo leen gisee moom mi ci boppam Marième Faye Sall tiit paranoïa jaaxle janaxe xamul lu muy def am na lu tax parce que lu mu def yëpp la ragal ku ko appliqué ci moom dafay daw léegi poison walatu lekko mi de day dow ku ko poisonné dafay daw ku ko doxee ginnaaw bett ko day ragal ku ko clan pour rey ko day ragal ku nga xamante ne teg na diil pour rey ko wóolatul kenn parce que lu mu def lépp moo commencé di bangin bangin on her head ba ma jëkkëram moo gën a ñàkk afiya camouflage de jëkkër ji day camouflage jëkkër ji fa ne moo gën a pare nooy dëkk Afrique yëpp xam ne dañ ko rejeté xelam dalatu ci dugg ci dëkk Afrique yëpp waaye di ko naan moom max kii force ever premier drame bu Sénégal gi bu la sàkk bi Marème Faye Sall nee la démb def bu ma defee vidéo fii barki démb nee naa la ñàkkoo ñi nga war a yebal pour ñu dem xeexi mais yow am nga armée am nga armée force spéciale ana les marrons du feu ñooñu sa armée lañu ana terroriste yi nga dem dajale indi leen jox leen ay tenue gendarme ñu sol am nga sa équipe armée léegi militaire Sénégal yooyu nga xam ne dañoo waxante par ñoom du ñu dem fenn te yow sa jëkkër ci naanum deret nga yéen Afrique leen jaaxal te tout dommage yéen ñaar ñooñu yéen Afrique yépp leen bañ rejeté leen ndaxte révolutionnaire bii du révolutionnaire kii sénégalais kese de is the whole african ñépp a jóg nekk benn daa mel ni que is bu suñu ancêtres yi doon xeex slavery pour ay minutes waxoon naa leen ko fii samay vidéo yi dëkk bu nekk dañoo déggu ba amee ay esclaves yi ñu indi ci yeneen dëkk da leen carrément ñu ngi ñëw mais dinañu jaar dëkk nangam waa dëkk ba préparé bu ñu accès ñu dem dóor attaqué leen récupérer seen frères ak sœurs yi teg leen ci benn côté noonu lañuy ñuy dajalee ko ba ñu bari ci benn béréb fees fa dell noonu la ñuy xeexee ba ni ko bon yeen rythme bii tëgg nii yëgoo leen ko yàq sa jëkkër Afrique moom manko ya amatoo leen fu ngeen di jaar dangeen a dangaam wane ne dangeen yéen dangeen a jum moo tax xoolal Sénégal ngeen di réprimer foofu noonu senegal yi nga xamante ne dañoo yaafuus ngeen dem jël quelques Sénégal yi nga xam ne ay jaam nañ jiite leen def leen def leen laa léegi yéen foo leen dem amoo leen avancement amoo leen de yéen fi dangeen a cam Munolendem len dem Niger pour xeexi muno len dem fenn pour xeexi te pourtant am nga sa armée say marron di feu yoy nga amone sen terroriste faaye yoy brown brown faaye bob ngay am sen terroriste groupe bi ngeen attaquer sol len ay ton jox len ay arme ndeke yeen xeexal sénégalais kessé ngeen mën mais quant à jéggi frontière dem xeex fene muno len ko do tamit jigen nga danga ne sa bop yow jigen nga danga wane sa bop ne yow jigen deug nga jigen nak dafay assumer lu muy def bul toog former sa armée muy xeexa sénégalais yi kese ba pare ñemewoo sa armée jéggi pour dem xeex yéen rek la waa Niger di xaar parce que ñëpp daw nañu bu ñu amee ay tànk mais yow senegal yaa sa jëkkër ak Aïssata Tall Sall yéen a des bu soldaar yi ne ñoom dem ñu fenn parce que xam nañ foofu dem fa moom kenn ñaanoon leen luñ fa war a jëlee lu baax jéggi Sénégal mooy. ku ci nek sa fami na nga dem tok ne carrément bay wala nga tok ne carrément bu dee jigen nga so uti benen njëg nga tukki ndaxte ñoom jéggi Sénégal frontière Sénégal moy jeexna donc bala armée gi militaire yi di haru ci benen dëkk ñen haru sen dëkk ba paré marin Faye Sall ak Macky Sall am nañ sen propre armée terroriste rebelle camouflé nañ dem jëli ñooñu sen armée fort na dé am ngeen armée jigen ñom ñi nek ci TFM ñi journaliste yi ay Sénégal 7 ñi nek ci yeneen télé yi ay Sen TV ay yenen yi waxuma waawal ñoo ñepp seeni armée lañu jox leen ay gannaay ñi dem yokku ko ak sen terroriste yi ngeen am ak sen sen terroriste maroon di fa yooyu am ngeen armée bu doy go dem xexi te di ngeen xexi de di ngeen xexi yene déclarer guerre de guerre de ki nga xamante da ngeen am ak ñom ennemi révolutionnaire bi ci whole Afrique la te li ngay toogee di xalaat mun na happen anytime yaa pare nooy kooku dama lay advice ni nga ko doxalee noonu yëpp rythme bi ngay dégg noonu it is real nga toogee di xalaat mun na jóge fu nekk ngay tiit continuer sa tiit na bu la dara bett continuer sa tiit yow Marième Faye Sall bu la dara bett parce que rythme boobu ngay dégg noonu yes sa bos la du bos keneen ak keneen. yow sa bos la yow Marème Faye sa parce que yaa ko togg yaa ko jëmbat yaa ko arrosé yaa naan yaa rey yaa plan yaa joxe oot yaa def lépp yaa poisonné yow la li nga togg rek ngay récupérer sa loxo moo fees léegi nag lan ngay ragal tiit fii am na ridim bii tëgg bi jëm ci yow te xamoo fan la it is for you li yaa ko woote yaa ko prophesize is on its way to you so anytime nekkal on standby xam ñu kañ la xam ñu fan la xam ñu ni muy ñëwee but to advise you just be on standby anytime is karma. is a big bitch bitch bu ëpp sa bitchness sama njaboot gi kenn du len jam ñi jàll mu munoo leen jam sax ba nga jàll li nga rey ci ñoom bari na tey jigéen yépp a ngi yuuxu Sénégal kenn desul nga bokk bennoo nga bokk Pastef nga bokk fenn ñépp a ngi yuuxu Sénégal amul kër gu des lee tax ma leen ni wax yenn nii sénégalais jigéen ñi prochainement bu jóg amee révolutionnaire lu mel nii te ngeen woote seen bopp ay góor ay toog di naan seen yoon newu ci islaat yaa ngi professe clem li nga xamante ëllëg di nga ne sa yoon comme tay li ngeen xalé yi di dem mars am ñi di naan dañuy dem ñom dañuy dem jangi, ñi naan seen ñom dañuy dem jaay tay ñi ci gëna a jaay kat yi ah ñi dem jangi ñom lañu bub yobul leen ñom lañu ray ñu bari sa yoon ci ci li nga xamante ne dañu ne nañu libéré suñu dëkk pour ñëpp am ci njëriñ bo ci mënul da togo sa kër waye genn naan da ngay wane yow sa yoon ni wala da len doxi sa soxla iris yaa ngi ay bal perdi ñëw fekk ci la wala provoquer ay loxo yu bon ñëw fekk la fa laal la parce que danga ne sa yoon new ci yow ya ngay maan yow on business dangay maan sa on business mooy nga toog sa kër ba bu dëkk bi jaxasoo te yow da nga bëgg a maan sa on business maan yow on yow waaye boo soo génnee rek bokk nga ci xeex bi te xamoo ko soo dinaan sama njaboot my people dama oto moskonti xeex mën nga ko xeex ci façon mi bari nee naa leen boycotté leen lépp li nga xamante même bu nekkee sa ay lifer yi nekk ci internet di naan dañuy jaay boycotté leen lépp xeex bi da ngeen ni boycotté lépp li nga xam ne day yokk ñii di toog naan dañoo neutre dañuy nekk ci internet di jaay ñii di jaay ay pour ñeent da ngeen di boycotté lépp ku toog gisatoo xaalis nga toog internet di rey sa bopp di wax waa personne gisoo ko jënd gisoo ko dugg viw topp la yéen sénégalais yi nekk Sénégal yéen a a xam ni ngeen taxawee pour libere seen bopp lépp da ngeen ko war a boycotté. ñii toog ci internet naan dañuy jaay wala nga gis tailleur ñii toog naan dañuy wone ay kii ba pare am na lu xew Sénégal ñii nag di wane nekk ci internet di naan dañuy wane lii mel ni que ñoom laal leen te laal ñi naan dañuy utti seen bopp dërëm mais yéen sénégalais soo leen mayul dërëm googu ñoom fu ñu koy jëlee fu ñu koy jëlee ci yéen la ñuy defee xaalis ñu mun a taxaw di wax léegi nag geer gi boo leen koy guerre lépp ngeen ni booy ko boycotté soo leen demee marché fekk fa ndugg wala ngeen dem fekk jënd waaye ñi nekk ci internet bi war a wax lu am Sénégal war leen fekk seen xeex seeni morom xale ñii ne fa di jaay ay xeesa ñi ne fa di jaay ay xef ñi ne fa di jaay ay di publicité ngeen topp leen pour lan pour lan xeex dafa bëri façon lépp ngeen ni boycott li nga xam ne ay daje la kon nag ñi ngi ñëw pour ay yàpp yi nag xar yi fu leen di dee jekkoo ngeen dem lekk ci yàpp yi comme ni ngeen ko tàmmee mais actuellement boo nekkee ci xeex lepp da ngeen ko wara boy parce que seeni population yi ñu leen ni mascarade mas lan la sa xel di dalé di dem di fecc tabaka dal te yow ñi ngi mascarade sa population on what man dama comprendre ban ban ban mayen relax ngeen ni am pour Mumbai pour fecc xol leen ma man mi seen mama mënatuma it's like sen lu leen def man dafa ma dépasser tellement que mun ma am anything like content. te man sama njaboot bi content. leen he can't because right now seen xol dafa fees seen xol dafa tàng ma cooperate ak yéen I felt it big time du ma nelaw bu mu nee ban heure laa commencé live bi I don't sleep parce que nekkoo leen di nelaw amoo leen afia every single day sama doom yi des fois damay jóg kii ñu naan maam mi doo tëdd na loppal ma déedéet sama dëkk xale yi nekk ñu delloo. loolu yëpp bëgg nañu def sacrifice pour yéen seen afia ci sama njaboot ngeen bokk ngeen war a boycotter everything yéen a ëpp tey Sénégal yëpp lañu laal léegi senegal bi yëpp bu ñu laal noonu.